dañuy euh, doore comme d'habitude rek euh, li ci yéen kaay ak Walf Quotidien Walf Quotidien dafa xëyee dellusiwaat ci Rose Wardini bi nga xam jamono ji dafa mujjee génne loxoom ci élection présidentielle yi ñëw lam si jublu mooy fexe euh, ba mettre ñëpp à l'aise yéen kaay gi ne léegi bu neexul neexul ba neex waaye kenn rek ci jigéen kenn rek moo des ci jigéen ñi te moo di Anta Babacar Ngom moom kese kon moom kot moom moo taxaw kon ngir fas yéene euh, euh, représenté jigéen ñi jëm ci élection présidentielle yi noonu la ko yéen kaay gii di Walf Quotidien xëy fësal leen aussi loo xam yéen kaay gii di Walf Quotidien xëy na ko fësal te mooy élection présidentielle 2024 euh, yi ñuy dégmal fichier électoral bi finalement bu yéen disponible Euh, grève euh, bu amul app bi nga xam ne professionnel euh, professionnel notamment créé nañ ko maanaam ñi nga xam ñoom ñoo di toll ni côté mbalit yi borom oto ya ñoom daal nee nañu état bu Sénégal foofu mu fay leen seen fukki milliards ak ñeent mu leen amel defu ko mbalit moom kenn dootu ko ne tonneti fii ci Ndakaaru noonu la ko yéene kaay gii di Walf Quotidien xëy fësale Sud Quotidien yéene kaay gii di Sud Quotidien xëyee dellu si waat élection présidentielle 2024 yi ñu dégg ma yor Euh, mujjee naa seppi loxoom ci mbir moomule bu ñu sukkandikoo ci professeur Ndioghi Sarr euh, di ko xam ne ni euh, xam-xamam dafa malitoon ci wàllu droit public moom dafa jàpp Rose ñàkk bokkam ci élection présidentielle yi mënta wàññi lenn ci élection yi la kenn mënut maanaam war a si koy mën a reporté noonu la ko yéen a xëy fësale le mandat le a kaay xëy dellu si ci lu ni mel wax ne Rose Wardini finalement du mujjee bokk ci élection présidentielle yi di ñëw tax yéen a xam ana lan la yoor yoor xëyee dellusiwaat ci élection présidentielle yi nga xam ne ni euh, ñu ngi ko war a amal laata ñaari fan ci weeru avril yéen kaay gi nag bu fekkee am na ci ay candidat yu taxaw di sàkkoon ngir élection yi ko ci date boobule ku ci mel ne Amadou Ba ñu yàbbi si ba tax yéen kaay xëy samp laaj bëgg xëyee fësale direct news direct news xëyee dellusiwaat nga xam ne am na jamono ci diggante Macky Sall ak Ousmane yéen kaay gi ne su fekkente ne Guy Marius Sagna ma ngi yëkk ay kàddoom di eh, di dal ci di dal ci nguur gi ak yeneen nun mel ci jamono jooju Abbas Sall moom ma ngay négocier ci suuf eh, tax yéen kaay gii di déglu xëy ji di ñu xamle ki nga xam moo nekk suuf te du Moussa Yara eh, nit la koo xam ne ni daanaka ku ku ñuy ràññee la fële ca Cap Manuel moom Moussa Yara mi boo fàttalikoo protocole bu Conakry moom moo ko doxoon ci diggante. Euh, maître Abdoulaye Wade ak ki nga xam moo di Macky Sall noonu la ko yéenekaay gi direct news xëy fësale source a bu dee yéenekaay gii di source a dafa xëyee dellusiwaat ci lu jëm ci euh, dialogue bi nga xam ne lu ñu wate jamono ji yéenekaay gi ndax waxtu jotul ñu jàppale ki nga xam moo di président Macky Sall dimbali ko noonu la ko yéenekaay gi xëy fësale ndax li ko dese ci fan mu ngi toll ci ñeent fukk fan ak ñaar yu teg ñeent fukki minute ak ñaar yu teg ñaar ñeent fukki seconde ak ñaar euh, kon a laata ñaari fan ci weer su ko defee mu mën a jël nguur gi dalee ko jox ko

yéen kaay gii di 24 na Sénégal jamono ci daanaka daal mu ngi ci guuta maanaam daal jàmm ji moom fu mu toll daanaka lu lu xaw lu xaw lu xaw lu xaw a cate la te euh, président Macky Sall ak Ousmane Sonko seen maanaam lépp daal mu ngi aju seen yoxo euh, ba tax yéen kaay gi jàpp ne Ousmane Sonko warees na koy bàyyi mu ñibbi a xool daal nga xam ay détenus politiques seen kër am na si kenn koo xam ne ni dafa doon xaar liberté provisoire mu nekk juróom-ñaari fan ci weeru mars waaye dañ ko mujjee bàyyi Eh, maanaam daal bàyyi yu bari yi lan moo ko waral garde des Sceaux di soxna Aïssata Tall Sall dana fas yéene jàkkaarloo taskatu xibaar yi loolu ci ngoon koy jëlee lay doon noonu la ko yéenekaay gii di Le Quotidien xëy ñoom bokk noonu eh, daal la ñu bëgg mooy élection yi ñu reporté ko woote ay waxtaan yoo xam ne ni ñë ñi si euh, war a bokk daañu si bokk su ko defee ñu bàyyi as askan wi déterminé wu noonu la ko yéenekaay gii di laas xëy fësale réew mi réew mi ne lu jëm ci date bi nga xamul lu ñu war a jàpp ngir amal ci élection présidentielle yi ñu war FC 25 euh, daal ba fii ñu ngi commencé maanaam ñu ngi commencé daal yàkkamti la bëgg daal ci président Macky mooy mu jàpp date bi avant le 2 su ko defee ñu amal élection présidentielle yi noonu la ko yéen gi xëy fësale gannaaw nag euh, di génne loxoom xëyee dellu ci bataaxal bi nga xam ne ay député génne nañ ko te nañ bureau assemblée nationale moo ko génne di am daal ay kàddu ñaaw yoo xam ñu ngi koy yëkkati di ko teg ci justice bi loolu nag doon na la nga xam metti na lenn ci ci ay député ba tax ñu yëkkat seen kàddu di koy ñaawlu collecte des déchets maanaam ñi nga xam ñoo di concessionnaire yi te man borom camion yi nga xam ne tonne mbalit mi ñoom daal dañoo banque seen yoxo bi pa dañu fas yéene grete ab garaw bu amalul àpp li ko waral nag mooy état bu Sénégal dafa leen amel fukki milliards ak ñeent yoo xam ne bi fii dafa lànk du leen ko fay tax yéen gi xëy samp laaj bëgg xam ndax Sonaged bi ñu dénk Mass Thiam Mass Thiam attan ko noonu la ko yéen kaay di l'évidence ab dëkk la maanaam ab boo xam ne nekk fële ci Ouest Foire nee nañ foofule boobu xoolee ba xool daanaka mooy Mbëbës bis mu ngi nekk nag fii ci biir Ndakaaru bu ñu sukkandiku ci délégué de quartier ba di Moustapha Niang nee na euh, ci diir bu gàtt rek gis nañ fa juróomi bébé yoo xam ne dañ leen fa sànni te kenn si ñoom am amul bakkan loolu nag euh, doy waar tax yéen kaay gi di la solee yi nga xam ne ak euh, cité boobu lañu naan cité Xandar 2 ñu wax ci critique ci jamono ji nga xamul lu ñu waajal ah. ko yéen ndax kees yi daal la ci ne nee nañu mu ngi toll ci ñetti junni milliards yu teg ñetti téeméer ak fukk ak ñetti milliards ci suñuy koppar noonu la ko yéen giir critique xëy fësale Garcet yaakaar mhm. ak Pape Gueye noonu la ko yéen kaay gi de sat xëy fësale yéen kaay soit ci biti soccer suñu gars yi dina fas yéene jàkkaarloog daañu fas yéene jàkkaarloog équipe bi euh, di euh, Japon euh, bu ñetti waxtu dem ba fekk ci toll ak fanweeri minute ak ay lay bu ñu dañee gagné équipe boobu le rek moo leen di may ñu jàll ci quart de finale noonu la ko yéene kaay gii di stade xëy wax ci moom Modou Lo fu mu toll nii ana ban adversaire moom la ñu ko war a jox ci noonu la ko yéene gi ne neexul ba moom Modou Lo fu mu toll nii ci calcul gu métti la ne noonu la ko yéene kaay gii di sunu lamb xëy fisali soxna Fatou Bintou jeex na tàq waaye jeexagum na <laughs> laata ñu permettre la un peu de souffler ñu ñëw ci l'actualité en tout cas de ce mardi euh, bu euh, Seydina Oumar Ba <laughs> Seydina. waaw on dirait. invité yi daal dañu yërëme. vraiment gis naa sa réaction. Moussa invité invité mu envoyé ko léegi message nekk dootul mën a ñëw ñoom dañu yaakaar daal télé moom. <laughs> Mhm. loolu yaakaar ne télé daal kii la quoi. Moussa taalal sa micro parce que ah. dégguñu la da ngay taal sa micro s'il te plaît na tàkk naa sëriñ après nga déplacé wu ndànk exactement. dem sa éviter ñëwul. <laughs> en tout cas euh, toog ba ci plateau euh, tu t'aperçois que sa invité bi ngay xaar. Mhm. Euh, envoyé la ne la dafa empêchement. dernière émission eh, espérons ko mu doon jàmm rek ah. waaw. espérons ko mu doon jàmm mais tey ci la tey ci la nga waxtaanee tey. bon tey ci calendrier républicain bi. waaye. xam nga aar suñu élection. ñoom bëri na ay syndicats d'enseignants yi nga xamante ni ñu ngi si biir. donc ñu porter le combat si comme si que sax ñoom la affaire bi gën a métti. ok donc ñu forme bloc dem ak waa société bien vrai que ci société civile lañ bokk mais yeneen travailleurs ñu nekk ci. plateforme boobu juste pour euh, pousser le gouvernement à respecter mooy report élection bi mhm. euh, léegi seen seen détermination c'était inviter le gouvernement à tenir à date échue les élections nga xam ne dañ ko fixé woon le 25 février mhm. parce que euh, ak aussi le communiqué bi nga xamante ni ministère de l'éducation nationale génnee na ko mhm. donc ñenn vraiment mu nekk loo xamante ni sorte d' intimidation lañ ko mën a tuddee si ñoom quoi. xam nga un travailleur booy xool c' est le seul ministère boo xamante ni moom moo génnee communiqué juste pour dankaafu ay ay kiiwam ay travailleur am mhm. donc euh, loolu aussi xel mu mënee su ko jàppa di la fet parce que tey mënuma xeex sama ak ak yelleef mhm. euh, yow nga nekk sama chef. nga ne non sa ak ak yelleef doo ko fi xeexee quoi donc là c' est c' est c' est pas du respect. Ah, en plus aussi xam nga am na ñoo xamante ni dem nañ adhéré ci plateforme boobu. Mhm. donc euh, am na aussi syndicat d'enseignants yoo xamante ni bon dañoo adhéré euh, d'une manière un peu kii quoi. Ah, léger ah, donc tout cela on devrait statuer sur li euh, posi engagement yenn yi ak désengagement yeneen yi donc loolu la ñu waroon ak aussi division bu am G7 parce que ñoom dañoo ne G7 dafa diviser wu en trois parties. G4 G2 ak G1 maanaam G1 bi c'est CUSEMS A bu Dame Mbodj mhm. G2 mooy CUSEMS ak SAEMS mhm. léegi G4 mooy CELS UDEN SINELAS ak euh, voilà euh, CELS CELS A donc euh, division baa ngi ko quoi voilà mi ngi fépp donc <laughs> tous ces points la ñu waroon waxtaanee mhm. mais on comprend notre kii notre invité mais nag c'était pas normal mu bàyyi ba 7 heures et quart dama koy dal moom c'était pas normal mu bàyyi ba 7 heures mun nañu ah voilà franchement quoi parce que y' a beaucoup de de syndicats d' enseignants yoo xamante ni yi sollicité woon pour ñëw mais comme euh, une situation moo imposé wu woon mm-hmm. avec UDEN nga xamante ni c' est un grand syndicat donc il a fallu que ñoom ñu jël leen surtout si seen sorti SG bi mm-hmm. ah. donc pour que euh, seen SGA rectifier le tir seen seen seen SG moom apparemment bon il est mitigé il est confus il est il e il est il waaw il est mitigé te mën nañ ko comprendre quoi xam nga syndicalisme bu ñu koy wax c'est le sang mm-hmm. te les vieux mm-hmm. mag ñi ko waaw mag ñi <laughs> <laughs> waaw mag ñi defar moo leen kii moo leen waaw moo leen sonal quoi donc ils n'ont pas cette foug mm-hmm. donc du coup on a choisi un jeune comme Pape Abdoulaye jalo mu ñëw porter le flambeau pour justement. voilà parler au nom de ko waaw moom moo ko téye également ah, parce que ku disponible la waaw saa yu ko woowee également dafay teew mais on aimerait ci plateau bi mhm. waxtaanee moom lu jëm ci njàng meeg njàngale bi parce que euh, gis nañu enseignants yi mhm. taxawaay bi ñu am ak plan d'action également yi nga xam ne mhm. euh, teg nañ ko euh, bëggoon nañu xam ñi nga xam ne ñoom ñooy enseignants yi ndax calendrier républicain bi ñu sàmm surmonter ko war na tax ñu sacrifier également euh, avenir u euh, xale yi mu doonoon ponk mhm. yoo xam ne Seydina Omar Ba euh, dina doon gën a yaatu ci ci plateau bi moom moom mu teew ñu waxtaanee ci wàllu njàng beeg njàngale bi ndax sujet boo xam ne bu am importance la alors que élève yi fu mu nekk nii ñu ngi bëgg a jëm ci composition waaye nag ñi nga xam ne ñooy enseignants syndicalistes yi moom daanaka bëgg nañ nekk ci classe yi bëgg nañ nekk également ci euh, campagne bi xam nga mu doon lu lu lu doy c'est à déplorer système éducatif bi mais buñ bu leen fi amoon sax moo doon euh, ëpp importance également dinañ ci dellu siwaat dinañ ci dellu siwaat ñu dikk nag ah donc ci <laughs> sama ci sama rubrique donc il est là comme d'habitude comme d'habitude <laughs> cette fois-ci moom doo ma yëg quoi. non doo yëg sax ah nañu <laughs> waxtaan ndànk rek après su ko defee peut-être yi mën see wax. incha allah Sadou Fatou Bintou. waaw bon tey jii li ñu fas yéene waxtaanee d'abord je pense même si ñaari point point bu njëkk bi mooy Raj Wardini. Mhm. bi nga finalement finalement démb dafa jël décision daal di jeter l'éponge. mu bett ñëpp. Euh, waaw mu bett ñëpp euh, comme mën naa bett ñëpp comme mën naa mën naa ñàkk bett ñëpp parce que aussi bu ñu waxante dëgg aussi ñu Raj Wardini ñu bëri dañu doon posé wu laaj question présence am. ci ñaar fukk candidat yi xam dañu leen recalé. fu mu jëlee parrainage a calé. la mën a jëlee parrainage loolu ay question la yoo xam na koy mën a. bëri na morom de ci mm-hmm. candidat yi. te bëri na ci ay morom effectivement ci biir candidat yi kon tey jii bu fekkente ne kooku dem na bu si biir gis na ne moom si boppam mëntu la dem ndaxte tout simplement dañ ko tuumal comme quoi dafa amee ñaari nationalité kooku dañ naan ndokk <laughs> maanaam dafa war. parce que xamul tax soxna Fatou Bintou. c'est que Sénégal gii damay faral di wax dafa tollu si jamono joo xam ne bu ñu ba di ko dénk dañ koy dénk ay nit ñoo xam ay nit ñu sincère lañ mm-hmm. ay nit yoo xam ne lañ lay wax ak li nekk si ñoom si moom moom méngoo man loolu laa gëm man parce que déclaration sur l'honneur en général bu fekkente da nga cee def leneen lu ci wutu rek par par jour la mm-hmm. kon li logique mooy dañ la war a jàpp entendre la bu laaj sax ñu tëj la kaso dañu war a tëj kaso parce que da nga wax lu lu lu dul dëgg léegi imaginel tey jii yow si jëm bopp nga ne da nga taxaw pour jiite Sénégal ba nga koy jiitee ñu ne la pour nga mën a bokk ci eh, eh, eh, candidat yi dafa am juróom-ñeenti pièce maîtresse yoo xam da nga ko war a déposé waaye bi ci ëpp solo mooy déclaration sur l'honneur mm-hmm. ngay ñëw di déposé te ba ngay déposé yow biir la ne yaa ngi ñaari nationalité kooku du ñu ko mën duppee. parce que du sàcc. non wax lu am wax lu. pour pour pour rafetal quoi. mooy wax lu amul la. léegi nag est-ce que ñun Sénégal tey ji noppi nañu. di jox suñu présidence ay nit ñoo xam ne lu ñu wax euh, li ñu lay wax ak li am si ñoom si euh, si diamétralement opposé li daal rasoir nit mais moom moo daal Karim Meïssa Wade bien que fu mu toll nii waa PDS ñu ngi jëfur fu ne di sàkku à ce que vraiment élection yi nañ ko randal woote ay dialogue su ko defee pousser président Macky Sall pour que mu organise ay élections yu inclusive mais nañu waxante dëgg dafa am ay critères yoo xam ne nii bu fekkente ne yow da nga bëgg nekk président de la République ko war respecté respect bi mooy lan mooy nga fexe ba la ngay wax méngoo ak say jëf mais bu fekkente ne yanga la ngay wax ak sa jëf dafa xaw wute kooku neexul boo tax war nañu mën a tey yow parce que dafay wane ne tey jii kii tey jii bu toogee ci élection loo xam ne campagne na la ko digla ko bu toogee leneen ak leneen lay def moo tax loolu dafa bokk ci critères yoo xam ne war war nañ koy seet yi kuy koy koy tànn ab njiit boo koy tànn war ngaa xool ci moom ndax am na am na sincérité ndax am na yenn intégrité mais déclaration sur nan ko ko mën a defee wax na ne yaa ngi benn benn nationalité ara yow bañ dem ba ci biir gis na yaa ngi ñaar nationalité kooku de facto a <laughs> di war ngaa mën a bokkaat war nag ñu bëri ñu ngi posé la question Rose Wardini daf bokk ñaar fukki candidat yi nga xam ne moom la ñuy woon mm-hmm. nañu war a bokk ci élection présidentielle yi di ñëw léegi le fait que Rose Wardini bu fekkente ne bokkatul ci élection yi est-ce que loolu mën na am benn njeexital ci processus électoral bi dégg naa nag am ñuy wax ne ne effectivement war na am na a njeexital parce que yi constitution constitutionnel war nañ ci mën a sukkandiku pour reporter ay élection mais loolu ñu koy wax mooy ñi nga xam ne dañoo taxaw pour na sax na euh, lëndëmal bopp askan wi mais ku xool article 31 ci suñu constitution bi lu mu wax dafa leer mm-hmm. su fekkente ne am na benn candidat boo xam dafa empêché wu wala mu dem ba si biir daal di renoncé wu ci candidat yi conseil constitutionnel da koy sévir ah mu xool léegi su ko defee loolu mënta wàññi dara ci processus électoral bi dañ koy continuer mais par contre dafa am ay cas yoo xam ne ni ci lañu ñu war a reporter ay élection te loolu ñaanuñu ko ci yàlla su fekkonte ne ci ñaari fukki candidats yi amoon na ci koo xam dafa ñàkk bakkanam kooku de facto élection yi dañ koy reporter su fekkonte ne dëkk bi dafa nekk ci calamité comme li ñu daloon euh, ci ci ci ci ci euh, ci Covid 19 bi loolu aussi dañu koy reporter de facto su fekkente ne aussi dëkk bi dafa nekkoon ci guerre kooku aussi dañ koy reporter de facto mais Sénégal nekkul foofu. abreuvoir de ni moo dem ba ci biir def la muy def wax na ne mu ngi ñaar nationalité alors que benn nationalité la am dem na ci biir actuellement ne sentirutul boppam génn na kooku warta mën a tax ñuy reporter ay élections. kon ñi nga xam ne ni ñoom ñoo fi nekk di langaamu pour loolu mënta ne. report moom loolu moom nañ ko teg ci suuf <laughs> parce que gisuma <laughs> li tax jàppoon ni par exemple ñi nga xamante dañoo bëgg ñu reporter élection yi tamit est-ce que du ñoom dañoo bëgg xam nga dëkk bi rek tamit hmm. parce que loolu lañ ko mën a tuppee quoi xam nga hmm. instant bi nii la situation revient un peu à la normale bien hmm. vrai que c'est pas au calme mais le fait que ngay su su soulever waat duñu reporter élection yi bien vrai que aussi am na lii tey xel parce que date bi ba léegi ne c'est pas encore déterminé est-ce que loolu tamit nekkul ñooñu par exemple dañoo bëgg lë ëllëg ëllëbal ëllëgu Sénégal. day bëgg ci tur la tur la na population bi quoi. waa xam nañ ne duñu bokk mënuñoo bokk waaye dañu bëgg xajamal mbir bi. Mm-hmm. waaw et surtout man aussi l'attitude du PDS quoi je l'aime pas quoi parce que il euh, c'est-à-dire un jeu mm -hmm. il faut être fair play quoi te ñoom ils sont pas fair play mm-hmm. et pourtant ñoo waroon gën a waroon gën a mën a fair play pourquoi je dis que ñoo waroon gën a mën a mën a mën a fair play au moins ils ont eu une occasion à diriger ce pays pour 12 ans mais 12 ans kay Bintu ku ko diriger quand même je pense bien que euh, amatoo lenn looy kii un certain Karim Wade maanaam bëgg ñëwaat ci gouvernement bi gouverner mais au nom de quoi au moins am na am nga loo xamante ni sa morom amu ko ah Ablaye def na fii jaloore kii ku nekk xam na ni Ablaye Wade il a été une personne un président multidimension un président boo xamante ni dootuñ ko fàtte. mais kan la ñuy jox suñu réew koo xam ne. Karim mu ngi fee tëdd ca Dóowar. Karim ne sait même pas xamul suñu jafe-jafe. instant bi ñu ngi dund jafe-jafe yu métti ci wàllu euh, dund gi. Mm-hmm. moom mu nga tëdd euh, ci euh, sept étoiles yu yu nooy. Mm-hmm. pendant ce temps askan wi nekk fii si ay boolu jàmbat yoo xam ne aloo que ñu gis nañ ñoo xam ne ñu ngi ñu koy taxawul. duñu ñu fompal suñu rongoñ du ñu ko xeexle en tout cas sur le terrain. Mm-hmm. kon kooku peine perdue la également mu mu toog fee bëgg a tas suñu réew mi. indi fi fitna ba pare. ne euh, te mënuñu koo gis chaque jour message lay yónnee euh, dernière dernière fois bu muy génn euh, ñu bëri ñu ngi ne collage la parce que li muy wax. Mhm. ak gestes yi concordé wul. bokkul xam nga mais lépp ñun la également. ah oui c'est ñun ñun ñoo ko nangu Moussa Sène mhm. Seydina Omar Ba que benn benn benn nit nekk fële rek. Sénégal duñ ko nangu sax parce que am na yoo xam Sénégal duñ ko nangu. c'est tout simplement xam nga politiciens ñoo nekk nit ñoo xam ne chaque jour dañuy deal ci ndodd population bi mais bu ñu waxante dëgg aussi. Mhm. moom Karim Meïssa Wade ci boppam est-ce que pare na sax pour dem ci élection moo mhm. ne élection yi daanaka weer ak ñaari wala ñetti weer rek ci tegoo fi tànk ah. parce que élection dañu koy waajal. gis nga élection ñu ngi koy waajal deux ans ou bien trois ans avant wala sax nga waajal ko lu mu lu mu yéexee lu toll mais yow kenn gisu la kenn déggu la tey jii say nit ñoom ñooy porter le combat gis nga problème bi fu mu toll nii waa PDS actuellement ñoom ñoo porter le combat pour que tout simplement Karim Meïssa Wade mën a bokk mais Karim Meïssa Wade au ce que moom sawar na pour bokk parce que vu question yi nga xam buy tànk yi nga xam yéegu yi nga xam mu koy teg da ngay ne kii est-ce que noppi na pour bokk mais l'essentiel l'avenir bi dinañu ko wax Moussa da nga poser benn question moom sol da ne dafa am ay candidats yoo xam ne dañoo taxaw actuellement ni pour que élection yi ñu amal ko avant le 2 mais par contre mu am ci ay candidats yoo xam ne ñoom li ñu bëgg mooy élection ñu reporté ko te ci yooyu am na ci fukki candidat ak yoo xam ne fu mu toll dañuy taxaw benn kuréel du euh, yaakaar naa FC 15 xaw ma FC 25. je ne sais pas je ne comprends pas. ñoom li ñu bëgg mooy que élection yi ñu def ko avant le 2 mais par contre am na si ñoo xam ne nii ñu ngi leen ciy tuddu muy ku ci mel ni mu Mouhamed Boun Abdallah Dionne muy ku ci mel ni Aly Ngouille Ndiaye même Boubacar Camara sax ñu ngi ko tudd comme quoi que ñoom dañoo bokk si nga xam ne ñu bëggoon seen sago ñu woote ay dialogue avant ñu organiser ay élection léegi nag dafa am loo xam ne nii il faut que ñu dugg ci suuf quoi xool mhm. c'est quoi le problème lan moo tax tey ji président Macky Sall mooy comme quoi que ne il faut que mu gisee Ousmane Sonko lan moo tax tey jii président Macky Sall taxaw ne lépp loo xam ne ay détenus politique la ñu woon te ñu jàppoon leen dafa jël décision pour bàyyi leen par benn te gis na actuellement nekk su par benn sax mais vague lay bàyyee. Mhm. lay leen bàyyee. c'est quoi le problème lan moo tax tey jii conseil constitutionnel daje désavoué président Macky xamal ko ne élection yi nga reporté mënutoo ko war ko reporté mhm. le 25 février mënutoo fay am élection mais fexeel élection yi nga amal ko ci nu gën a gaawee lan moo tax boobu ba léegi président Macky Sall jàppul date pour amal élection. lan moo tax tey jii président Macky Sall mooy kut ko kut ko ne il faut que mu toog ak Ousmane Sonko waxtaan kooku ay question la yoo xam ne nii war na koy mën a poser lan mooy problème bi mm-hmm. man nag ci sama jàngat dama gis ne ni am na ñaari ci te peut-être ci bu ñu ba ci biir mm-hmm. peut-être histoire dinañu dinañu ko mm-hmm. bi ci jiitu mooy que président Macky Sall dafa ragal dem ci élection yoo xam ne amaana mun na koo ñàkk te gis na ne avec son candidat la Amadou Ba amul sens pour dem ci ay élection maanaam ñoom pare wuñu waa coalition benn bokk yaakaar pour dem ci ay élection parce que c'est la première fois comme ni ma ko waxee ngay dem ci élection présidentielle yoo xam ne yow candidat bi nga xam ne moom le pouvoir bi porté il ne fait pas l'unanimité parce que gis nga Aly Ngouille Ndiaye génn na Mame Boye jaaw génn na Mahammed Boun Abdallah Dionne génn na mais ci ginnaaw loolu am na yeneen apéristes authentiques yoo xam ne ànduñu ak Amadou Ba muy ku ci mel ni Mame Mbaye Niang ak ñoom seen mm-hmm. léegi nag imaginer a dem ci ay élection xam nga ne kii bu jàllee sax deuxième tour lu la bett la léegi kooku benn la ñaar bi aussi lan moo tax tey jii président Macky Sall mooy comme quoi que ne il faut que il faut que moom nu ñu sax il faut que nu ñu koy sax euh, euh, mu toog Ousmane Sonko. man dama njort ne est-ce que président Macky Sall dafa xam ci Bassirou Diomaye Faye lu ñu xamul. <laughs> ah non dañu waxante nga ne est-ce que. est-ce que dafa xam. Diomaye lu ci Bassirou Diomaye lu ñu xamul. parce que pouvoir aussi. <laughs> dafa am information yoo xam ne xamuñu ko. parce que dafa mel ni que fu mu toll nii président Macky Sall xam na ne pouvoir bi waxtu nekk mën naa jóge ci loxoom tàbbi ci yeneen yoxo parce que bu fekkente ne Bassirou Diomaye Faye dem na ak Amadou Ba élection amaana Bassirou Diomaye Faye moom moo nekk en pole position pour gagner Amadou Ba. exactement. léegi Sénégalais nag dañoo mën a folli mais ñoo fal. dal nañu ci élection municipalité yi taxawal nañu fi coalition Yewwi Askan Wi. ñu dem ba ci biir folli ay maire teg fi ay maire yu bees maire ya fa des daanaka ñu fa jóge woon sax ñoo leen gën Sénégal moo mel noonu. léegi nag li ci mairie nekkul ci état. fu mu toll nii Sénégalais yi dañuy def focus comme quoi que ne Bassirou Diomaye Faye war naa mën a remplacer Ousmane Sonko. c' est vrai que ñoom ñaar ñooy ànd mais léegi problème lan moo tax tey jii président Macky Sall mooy ne il faut que mu waxtaan ak waa waa waa lan la président Macky Sall xam ci Diomaye Bassirou Diomaye loo xam ne ñu xamuñu ko. que bu fekkente ni dégg naa wax ji dafa mel ni que. Macky Sall Ousmane Sonko bokk ci élection présidentielle yi gagné ko moo ko gënal Bassirou Diomaye Faye bokk ci élection yi gàdd gàddu ko. léegi nag il faut ñu wax ñoom il faut ñu leeral lu ñu. pourquoi ci lan lan. lan la état bi xam ci Bassirou Diomaye fay loo xam ne xamuñu ko. parce que boo gisee actuellement nii ñu bëgg a woote ay concertation boo gisee tey jii ñu bëgg a woote ay dialogue pour vraiment organiser élection yoo xam élection yu inclusive la permettre à Ousmane Sonko mu mën a bokk. pour man président Macky dafa gëm na ne Ousmane Sonko nekk président de la République moom moo gën ci moom wala moo gën ci Sénégalais Bassirou Diomaye Faye nekk président de République. léegi nag ndax am na ay information yoo xam ne nii xamuñu ko ci Bassirou Diomaye Faye ndax état bi aussi am na ay information yoo xam ne peut-être Ousmane Sonko xamu ko ci Bassirou Diomaye Faye loolu je ne sais pas. mais l'essentiel man côté boobu laa ko la la la la <laughs> côté boobu nga jàpp daal laa ko xalaatee mais l'essentiel ak lu ciy mënti am nañ jàpp ne Sénégal gi dëkk droit la dëkk yoon la te dafa am lu ñu régir mooy suñu constitution suñu constitution dafa ne élection présidentielle da nga koy amel 45 ans 45 jours wala 30 jours franc avant ñu àgg ci avant président Macky euh, euh, mandat président bi di jeex. Mm-hmm. te ñëpp xam nañu ne président Macky Sall mandat mu ngi war a jeex le 2 avril. te constitution bi dafa wax ne ne président de la république bu fekkente ne mandaam jeex na waruñu see yokk benn waruñu see yokk benn fan président Macky Sall wala président bu mu mënti doon kenn amul droit yokk ci mandaam dara kon nañ jàpp ne président Macky Sall mandaam le 2 avril wala la jeex mais tey jii même lu mu wootee dialogue ak lu mu wotee wootee concertation waruñu ko mooy moom président Macky Sall muy reporter les élections mm-hmm. parce que wolof yi dañuy faral di wax nga booy tànn daal ci carax ngay mujjee situation bi ñuy dund cee jamono ji neexul ba neex moom président moo ko teg parce que au fur et à mesure ngay jël di éliminer ay candidats. Mm-hmm. di nga dem ba finalement di nga retrouver ak ay candidats yoo xam ne ay candidats xuusuma ñàpp lañu. effectivement naa la Sénégal gis nga Marek Sàkk mu ngi nekk benn président yow dafa xaw a dangereux. fu mu toll mu ngi nekk di éliminer ses potentiels adversaires kon daañu dem finalement pouvoir bi dafay ku nekk war na a for Sénégal mën na mën nañ dem ba mu tàbbi ci loxol koo xam ne bu ëllëgee ñun ñëpp dañuy màtt suñu baaraam wi cax te boobaa bu fekkente am na moom président Macky Sall am na ci benn part de responsabilité moo tax ma ne moom li ñuy xaar ci moom mooy que conseil constitutionnel jox na ko pour que mu génn par la grande porte parce que ba conseil constitutionnel jël décision daal di wax ne ne report report élection mënut la am. ba nopp fàttali ko nekk élection yi moom mandat am le la war a jeex. Mm-hmm. kon xamal ko ne ko ne ko yi. war na ko organiser ci diggante bi. maanaam war na ko organiser entre le trois mars ak le di mars ci diggante bi bu fekkente deuxième tour am na mën nañ ko sax organiser le 2 avril mu jël pouvoir ab joxe ko parce que aussi warta yàq woyam parce que neexul bu neexul aussi gis nga ñombar loo ko bañ bañ bañ bañ bañ nangul ko ne ko gudd nay nopp te mën naa daw. Mhm. président Macky Sall aussi loo ko bañ bañ bañ bañ jàppal ne am na loo xam jot na koo liggéey ci réew mi quand même. il ne faut pas être nihiliste quand même bien que def na loo xam ne ni ay dégâts la yoo xam ne Sénégal yëpp actuellement ni ñu ngi koy métti lu waaye au moins am na loo xam ne jot na koy liggéey ci biir réew mi loolu nag nga xam du koy jot na koy liggéey ci réew mi bu mu ko xajamal. xajamal xajamal na léegi problème bi mooy que conseil constitutionnel joxoon na ko dat pour que mu élection yi. mu ànd ak mu déglu ay focon am bu reporté ko <laughs> loolu d'abord effectivement comme ni ko xajamal la mhm. léegi nag porte conseil constitutionnel joxoon na ko beneen porte pour que mu organiser élection kon li ñuy xaar ci moom mooy mu organiser élection yi parce que xam nga Moussa mhm. parce que warul gën a yée warul def lu yées li fi Abdou Diouf def warul def lu yées li fi Abdoulaye waa def gis nga Abdou juuf ba mu demee élection Abdoulaye Wade Abdoulaye Wade gagné ko dafa woo Abdoulaye Wade félicité ko xamal ko ne ko effectivement gagné nga ma ba ba ñuy dem Abdoulaye Wade da ko gugee ba noppi porté ko pour que mu nekk euh, secrétaire général de la de la francophonie ba même ko aussi Abdoulaye Wade ba ko Abdou Diouf ba ko Macky Sall gagné ci deuxième tour mais dafa woo Macky Sall félicité ko bien que président Macky Sall foofu fayu naar bi xoromam parce que imaginez tey ji un président de la République woo la félicité la mu génn nga di ko jiñ ay sàcc ay tableau daar ak ñoom seen foofu nga doon xamee ne kii <laughs> grandeur nit ki quoi fa nga doon natte fa nga doon natte grandeur nit ki mm-hmm. mais tey ji image yooyu yëpp dépassé nañ ko léegi nag fu mu toll nii moom si boppam moo aaye tey le 2 avril dafa war a joxe passation de service dafa war a def passation de service kon li ñaaw mooy bu mu mujjee bu mu maanaam bu mu mujjee ci cin li xaw ma bu mujjee si ndab li ñaawal ko mm-hmm. c'est-à-dire que na bàyyi gars yi dem ci ay élection conseil constitutionnel mu retenir vingt candidats ci vingt candidats yi am na ku ñu naan Bassirou Diomaye Faye bi ñoo ko da koo ragal mais moom la conseil constitutionnel jàpp kon nañu bàyyi sénégalais déterminé wu xool ki gën ci ñoom ñu daal di koy fal le 2 avril mu defante moom passation de service mais gis nga bu dégloo faucon yii. ñuy fokk xanaa dégluwaat parce que palais ay faucon dañ faa bari. xanaa dégluwaat te faucon yooyu le ñoo ab ak Abdou Diouf Abdou Diouf jógee fi ñu ànd ak Abdoulaye Wade. tey ji ñoom ñoo ànd ak président Macky Sall bu ëllëgee aussi keneen ku fiy toog aussi daañu dem ànd ak moom c'est des faucons yoo xam ne ni ñoom seen bëgg-bëgg ak seen liggéey lenn la mooy jéem a conserver le pouvoir ñoom xamul dara lu mooy pouvoir li nag actuellement ne ñun ñoo nekk ci président Macky Sall di yëy noppam li nag président Macky Sall nag bu mu déglu faucons yi le 2 avril ma dem yoonam na consu man gis nga consultation yi ñu wax sax amul sens mm-hmm. dialogue amul sens président Macky Sall lañ jox ca gól gi parce que tey jii lu mu consulter lu mu consulter candidat consulter candidat yi mais le dernier mot lui revient. exactement. kon tey jii actuellement nii dem dañu am avec euh, dañu am course euh, euh, contre la montre comme ni nga ko waxee. Mhm. kon li li ñuy xaar ci mooy mu fexe mu organiser élection yi ci diggante le trois mars ak le 10 mars. su ko defee ci diggante bu fekkente deuxième tour am na ñu mën a dem le avril mu jël pouvoir bi daal di koy joxe mais bu dégloo faucon yi pour lan woote dialogue pour lan Moussa. ah mais dialogue bi xam nga ci kuñ koy xaar. ci ki ko war a wutu ëllëg ci réew mi. bu fekkente ne Déthié Fall moo ko retiré moo ko wutu ci réew mi. bu boobaa Déthié Fall war naa woote ay dialogue. pour jéem a réconcilier la population. rafetalaat lépp. daal dalalaat ñëpp comme ça mu jéem a continuer. wala bu fekkee aussi Bassirou Diomaye Faye la même chose bu fekkente ne kenn ak keneen la même chose mais moom fu mu toll nii xaatuñ ci moom ci dialogue parce ayam jeex na kon li ñu xaar ci moom mooy que mu jàppal date bi. date bi nga xam moom la gars yi xaar le 3 le 10 comme ça su ko Sénégal déterminé wu. parce que ñu passé euh, ñu passé si leneen quoi. monsieur ah, Seye waaw parce que monsieur le maire man xam nga dégg naa la ci say wax. Mm-hmm. Euh, nee bu mu def lu yées lu ab Ablaye Wade deful wala lu Abdou Diouf deful. ci de service waaw. Mm-hmm. man dama jàpp ni président Macky mm-hmm. en tout cas nit la doomu aadama la comme ñun. et pense bien que ñun tamit doomu aadama waru ko xool di am ci moom ay mbañeel wala mm. genre yooyu noonu. Mm. mais tamit aussi. Mm. li ma koy njëkk a man man personnellement. est que euh, moom xam nga Abdou ab Idrissa Seck. il lui maanaam yàlla na la yàlla defal da bëgg bi mu koy ñaan te ko doon cax nag. yàlla na la yàlla defal. par exemple sa dënn bi ubbeeku. nga mën a accepter. ay critiques yu contributive comme ay critiques yoo xamante ni c'est dans le domaine c'est associé tout négatif xam nga lu mu doon wax mu ngi nii tey te je me di que li ko sànq mooy il n'a pas voulu avoir un opposant loolu ko sànq gis nga opposant ci looy def tey jii nii nit ki lu muy def te bëggu nangu woo ci crit ñu critiquer la je pense bien que doo defar doo mës a def lu baax wala boog sooy def sax yow dootoo wóolu sa bopp et c'est ça qui lui est arrivé tey jii nii dem na ba ñàkk sax confiance ci moom comment yow nga mën a am yow sa candidat yow ci sa jëmmi bopp sa entourage wóoluwuñ ko kon doute premier bi ci moom mi ko tàbb ci moom la njëkk parce que tey jii nii xam nga wolof njaay dafa ne bukki bu yabee waxambaane ci doxin bi la lu tax par exemple ñi nga xamante ni ñoo nekk au bas de Amadou Ba. ñu mel ni ay ñoom Mame Mbaye Niang mën a def ay reproche à l'encontre de Amadou Ba. mais c'est parce que gis nañ ni président Macky Sall mi ko jiital. amatul ci moom confiance donc. <laughs> alors kon donc la porte est grandement ouverte pour man nga xamante ni je suis au niveau bas pour ma critiquer ko tey jii nii s'il se servait des critiques ci yenn opposants yi mu bañ a appliquer son truc là je vais réduire l'expré proposition à sa plus simple expression mu mm. servir par exemple euh, euh, ci critique u opposition bi mais aujourd'hui tey jii nii def na jaloore mooy li nga wax kenn du ko ignorer kenn du ko nier mais tamit mënoon na gën a def lu baax lu baax ndaxte baax lu baax du lu def ay infrastructure wala nangam sangam non non c'est pas ça c'est loin de ça parce que du loolu la sénégalais di xaar ci yow bien vrai que tamit casse-tête la pour déplacement yeeg et consort casse-tête ci population bi kon donc boo ñëwee nga indi par exemple des infrastructures parallèles yu nga xamante ni dañoo mucc ayib je pense bien que on doit on doit vous applaudir mm. et effectivement on l'applaudit pour ça mm. mais c'est pas du foofu lañ ko doon xaaree parce que booy xool euh, <laughs> ménager mm-hmm. mais c'est une catastrophe ah, les gens <laughs> vivent le calvaire il faut qu'on se dise la vérité tamit parce que boo gisee parce que boo gisee maanaam na ma ma yaakaar ne dañu su ko defee sénégalais yi passé à autre chose loolu moo tax. oui parce que instant bii mu nga xam ne économie Sénégal fu mu toll doxatul ah. doxatul. j'ai un ami pharmacien. ñu ngi waxtaan temps yi passé. kon aussi na wax. ma nekk li seen seen souffrance seen souffrance boobu la c'est hmm, fekk instant bii nii Sénégalais actuellement dañu may souffrir xam nga tey jii yaa ngi neen concessionnaire yi fu mu ñu ngi toog xaar seen fukki milliards ak ñeent yoo xam war na Sénégal moo fay fay ñu leen ko tey jii boo génne tey ci mbedd man bu may ba ñuy ñëw tey mhm. yaa ngi gis jàllu mbalit yi mhm. te da lay ñi dañuy déterminé wu comme quoi ne bu ñu leen fay seen xaalis mais duñu kii parce que aussi quoi qu'on dise sama élection période élection mais période euh, kii la période de chantage mhm. parce que yow da nga jàpp ne actuellement nii bu fekkente ne moment bii ci nga mën a lijjanti sa problème boo ko lijjantiwul amaana pour nga lijjantiwaat ko dafay posé benn ñu mën a def teg état bi pour que vraiment mu mën leen a fay seen xaalis dañ koy def ñoom ñoom ñoom les concessionnaires parce que li daal concessionnaire aussi moom moo daal ñi nga xam ne mooy les les travailleurs des collectivités locales cest xam nga lay problème Moussa ak suñu problème yëpp mooy que dañ am état boo xam ne des fois jël ay engagements yoo xam nga waxtaan ak ñoom de Amadou Ba nga dajale les que vraiment nga digle ne li ngeen bëgg naa ko defal nga dem ba defoo mais attends-toi que da ngay da ngay créer beneen problème. c'est que actuellement nii problème bi moo continuer continuer. yaa ngi nii euh, les ex-travailleurs SIA SOTRAC jusqu'à présent ñu ngi xaar seen xaalis jotuñu ko. tey jii def nga reportage ci marché bi xaw ma yaa ko def xaw ma kan moo ko def si pàcc la. mais gis nga tey jii marché bi nu mu demee ceeb bi yokk na. riz parfum bi yokk na. riz thaïlandais bi yokk na. riz jii suukar sax nee na am na lu muy def dana yokk te pourtant ak quelques jours ñu dem ci weeru koor gi. te déjà léegi nag tey élection yi tey jii tax na état bu Sénégal la mu waroon def tey defatu ko parce que ñoom ñëpp ñu ngi def focus comme ni koy faral ni koy waxee ci élection yi. Mhm. et ci jamono ji gars yi ñu ngi yokk njëkk yi. loolu moo tax ñu bëgg sénégalais yi ñu organiser élection yi ci nu ma gën a gaawee comme ça ñu mën a ci beneen étape parce que gis nga Moussa. Mhm. du ma ci du ko wax gis nga nguur produit la produit bu nag dafa am benn date boo xam ne dañ koy périmer waxuma pour attaquer waa coalition Benno Bokk Yaakaar mais man li ma gëm mooy ab état bu fekkente ne fan lañ le premier mandat de liggéey deuxièmement askan joxal leen seen confiance li la war mooy que takkal say bagages nga dem boo ñu jéem a jaay ay continuité. de la plus belle des manières. demal permettre ñu à que vraiment Sénégal yi tenté beneen expérience gis nga loolu moom a tax ab dëkk mën a développé mais boo ñu bëggee imposer benn plan benn benn plan. mais plan Sénégal émergent boobu ngeen di kañotee ji mais ça ne veut pas dire que yéen plan Sénégal mais plan Sénégal émergent mais plan tubaab yi la. boo ne actuellement fa demee am na plan Sénégal émergent c'est plan la boo xam ne ni tubaab bi ñoom ñoo ko confectionné jox état africain ñuy doxal mais est que plan boobu la ñu Sénégal yi gis nañ seen bopp mais déedéet. yéen nag bu leen neexee kañ ne seen plan Sénégal émergent baax na amul benn problème mais néanmoins def ngeen fi cinq euh, douze ans yoo xam ne ni actuellement nii seen plan doxal ngeen ko ba noppi léegi seen plan bi fii la mën a yem permettre leen yeneen Sénégalais aussi ñëw indil ñu beneen plan mais bu leen ñu imposer continuité quand bu leen ñu imposer amul sens quoi moo tax président Macky Sall li may xaar moom mooy mu nekk un gentleman son petit frère Aliou Sall bien que moom it bu ñu fàtte pétrole bi gaz bi mais l' wax na ko wax ju am solo nekk na organiser élection yi. xam nga nit. président Macky Sall tey jii ku ko bëgg da koy naan mu organiser élection yi avant le 2. léegi nag bu fekkente dafa ragal Bassirou Diomaye Faye kooku moom affaire la parce que xam nga tax parce que moom moo ci boppam moom moo moom moo créé Bassirou Diomaye a parce que bu fekkente ne a réduire à leur plus simple expression li moo la la parce que ñi nga xam ne war a nekk say potentiel adversaire boo leen jëlee jël tëj kaso bi mais nguur gi dafay nekk ci mbedd mi ku nekk mën na koo for kon responsabilité bi ñuy dund jamono situation bi ñuy dund ba moom président Macky Sall am na ci benn part de responsabilité kon nag l'erreur politique ça s'assume def na erreur njub nekk ci wàllu politique na ko assumer na organiser élection yi avant le 2 avril bàyyi sénégalais déterminé ku ñu fal ñu xam ne fa même bu dul yaaw jàll sax na bàyyi ñu ñu falal ñu ko suñu bopp. sëriñ nee na danga war a des ci dëkk bi dafa métti ndax moom mu ngi koy mu ngi koy dund foofu mu nekk ci machine yi. <laughs> xam nga lan moo ñu sonal monsieur mais c'est exactement ça parce que depuis 1960 ba léegi on a connu que quatre présidents. man je me dis te boobu ak léegi gisuñu benn avancement boo xam ne am nañ ko tey la ñu gën a sonn tey la ñu gën a euh, ndóol. Euh, effectivement ci ci ci réew mi comme ni ko Serigne waxee lépp lépp daam mi da amul. non Serigne borom kër la Omar Ba mun nañu xool ne amuñu <laughs> benn benn charge alors que ñun ñi di xale yi sax. Mhm. lañu yenn yàlla xam na ko. Mhm. fu mu nekk ni diis na lool lool lool si ñun. xam nga Bintu loolu kenn doo ko na dootu ko natable tey jii nii boo doon dépensé juróomi dërëm foog naa yaa ngi dépensé deux cent. wallaahi ñeent fukki dërëm lan moo ñu ko yóbbee dañ ko wax te dee mauvaise gouvernance parce que li nga wax rek gis nga boo muusee ba mu ëpp ci ay tuuxi dund rek ngay dëkk parce que da ngay jàpp loo def loo def rek sa xel doy na la ci te pourtant du loolu. Mhm. Macky Sall je dis que moom am na intention bu la amoon na parce que jeexal na dootul ma ne am na parce que son truc là ne sera plus ne plus considéré sax dès maintenant dañ koy kii nii rek ba ba le 2 avril mu xëjal ñu. Mhm. mais dama jàpp ni il avait la volonté de travailler mooy li nga wax mais son il a un mauvais entourage nañ ko wàcc dégg on a rien à craindre parce que ñun tamit waaw dañuy dañuy rek waaw ñoom ñay toog fee nekk ay conseillers daqu ñoo defar mm-hmm. ëpp ñoo gis parce que boo bu dee réalité rek ñun ñoo leen ko gën a xam parce que ñun ñooy wàcc ci terrain bi mm-hmm. chaque jour da dox dem sa kër mm-hmm. te booy jógee sa wala boo boo jógee Walfadjri di dem sa kër nga la nga jógee sa kër ñëw fii lu ne di nga ko gis ci yoon bi parce que da nga xat-xatul ak nit ñi ak autocar. jaxasoog ñoom nga wàcc arrêt bi nekk fële nga dox léegi lu ne distance boobu lu ne amul loo ci gisul kon donc foofu ngay xamee lu askan wi yelul mais du yow du dugg sa jeep wala dugg sa BM. bien climatisé yooyu noonu nga naan nool dëkk bi nangam sangam mais on sait que les gens souffrent <laughs> tey jii nii boo demee marché boo yóbboo 1000 francs looy fay jënd doo fa am dara. ndugg maanaam yow yow kenn kot. yow tu dépenses <laughs> xam nga dafa am koo xamante ni dafa am koo ni xale bu ndaw la léegi nag un vieux mu koy mu muy interpeller doomam mu ne ko même budget xale boobu noonu liir bi mhm. par jour de romb na 500 francs kon léegi budget man sa par exemple man mii borom kër yow mii borom kër Fatou Bintou yow mii monsieur le maire borom kër mhm. sa budget budget xale liir bu tollee ci cent léegi suñu budget ñaata lañ ko mën a estimer c'est vrai mais par exemple tey jii nii gis nga le chef de l' état fii dëkk bi yeeg yëpp man moom dama koy représenter parce que moo jiite ñëpp mhm. am na foo xamante ni da ngay yaatal sa dënn mhm. nga parce que yow la yàlla nat teg natu yàlla ku mu ku mu jiital rek teg la natu mhm. kon natu yooyu foog nga accepter ko nga am esprit de grandeur pour pour dérouler tes choses nga am par exemple de personnes de com man quand je vois par exemple des gens sur le par exemple je m'excuse parce que je voulais mais il faut qu'on parle les dossiers de Ousmane Sonko bi ñu ko fi amal man dama doon liir ci ay commentaires surtout des gens qui sont dans la mouvance une personne maanaam genre xeetu Ousmane Sonko yi. amul kenn amul benn dëkk boo xamante bëgg na ko seen dëkk. mais kooku di wax loolu est-ce que mesure lu muy wax. je pense bien que si le président de la République ak Ousmane Sonko ont des différends à régler. ont une compte à régler. Mm-hmm. je pense bien que Seydina sa yoon nekku ci sama yoon nekku ci yoonu keneen nekku ci. Mm-hmm. nañ leen bàyyi. ñoom ñooy tongoo. Mm-hmm. ëllëg si biir ëllëg it ñun ñoo ciy des. parce que li li indi dëkk bi yëpp ci guuta yi maanaam tout est parti de leur différent mais tamit keneen amu ci woon yu wàll di ci wax wala di ci wax loo xamante ni au moins safaan la parce que ñoom ñaar ñëpp des sont des êtres humains. te ku nekk am na ci sa biir xol loo xamante ni rafet na. Mhm. mais je pense bien que un supporter. Mhm. de l'autre côté. Mhm. ne doit pas xamul jeu bi nan la demee. te xamul jeu bi fan lay mujjee. kon donc wax ci lu nice dafa wax ci lu rafet. daf daf daf laa war quoi. tey jii nii bu fekkoon ni chef de l'État il était en mesure. d'ouvrir sa porte. pour opposants ñi nga xamante ñoo fare ci mouvention am mu xool. parce que tey jii nii su ma la dégloo rek Seydina ci am na ci côté yoo xam ne su ma la dégloo. Mhm. man dinaa xam ne yow sa xel bi mhm. lu baax la wala lu bon la. Mhm. parce que. nga xam li koy li waaw lii c'est mieux wala boog c'est gënul. kon donc chef de l'État. côté grandeur boobu noonu saal lui manque. ça lui manque énormément. dëgg la te je pense bien que on n'est pas au temps de. ça c'est vrai de li ñu waroon dialoguer. comme su fekkoon ni conseil constitutionnel tranché gul ba léegi. là mën nañ wax sax dialogue affaire yooyu mais comme conseil constitutionnel tranché na joxe na sa position nañ tenir les élections dans les dans les meilleurs délais je pense que il revient au chef de l'État moom mu rafetal mu rafetal ñu waxtaan ak acteurs yi ñu tenir date boo xamante ni mooy gën parce que voilà léegi nag mu mu dem par la grande porte parce que coow lii yëpp lu ko indi mm. mooy bu mu toogee le trois février xaw ma décret nangam sangam donc ñu reporter élection yi xam nga tout ça tout ce brouillard brouhaha la moo ñu moo ñu ci moo ñu moo ñu ko indi. Mhm. kon donc fu mu nekk nii nañu éviter loolu li dese as tuuti. Mhm. ci lu rafet ci lu kii na ko jéem a imposer à sa personnes wala boog ñu mën ko koo xoolee mu fair play mhm. Mhm. defaral maanaam euh, ak acteurs yi ñu détenir ñu déterminer la date mhm. pour ñu dem ci élection ah. léegi au moins comme libéré na ay des détenus politiques yooyu noonu xol yi xaw a giif naan ay nangam sangam ba ñenn ñi di ci frustré wu jaru ko le pays c'est le Sénégal ça nous appartient tous donc lu rafet rek lañ ci jublu kon donc na def élection yi waaw léegi li des comme xes naa pëccoxoog yooyu noonu na organiser rek après ñun ñu dem voté ji. ñu tëtër ñu tànn suñu. élection président en tout xam nga lu mooy problème bi nga lu waxti rek après ñu dem élection c'est dommage parce que waroon nañu bañ a àgg parce que instant bi nañu waxante dëgg si pouvoir bi si fu nekk <laughs> mën naa tàbbi ci loxo yu ne. Mhm. te c'est dommage que foofu lañ nar jëm mhm. léegi nag par rapport ak ñi nga xam ne Ousmane Sonko war a négocier mais Ousmane Sonko ko nañ ko bàyyi mu dialogue

te li gën a garaaw mooy ñi nga xam ne lañ ci jàpp ñu si bari si ñoom même bu fekkente am na ay militants Pastef mais am na si ay nit ñoo xam ne si yan bu Sénégal ñu bàyyi xel ñooñu mhm. c'est-à-dire ñu ngi bàyyi nag mais daa mel ni que ñoom ñiy bàyyi ñëpp daanaka c'est des responsables yu parti Pastef exactement mais aussi nañu bàyyi xel ñi nga xam ne duñu ay du bokkuñu si benn parti politique mhm, mhm. dañu wàcco si mbedd yi di manifester ñu fekk leen fa ñu doon fa ñu taxaw. des fois seen buntu ah, dañ dañ nekkoon ci mbedd mi di doxe seen soxla. Mhm. ñu fekk leen fa daal leen yóbbu ñu aussi nañ leen bàyyi xel bu ñu leen bàyyi ci kaso bi nañ leen génn aussi. Mhm. parce am solo l'essentiel dem waxtu jot na. Euh, li ñuy def rek mooy que nañu nañu nañu nañu daal xam ne ne Sénégal gi euh, réew mu tàkk. Mhm. ci élection la jaar réew mu tàkk ci élection la jaar te Sénégal dafa nekk ci benn pante boo xam ne dafa xaw a doy waar. parce que c'est la première fois Sénégal ñu naan dafa fas yéene exploiter ay pétrole ak gaz. te réew bu mu pétrole ak gaz nekk jàppal réew moomu la waxtu nekk aussi mën naa tàkk. kon Sénégal dafa nekk si ñaari tànk tànk pétrole ak tànk élection te bu ñu deful ndànk Sénégal mën na abrasé te bu embrasé wu kenn ku nekk si ñun war na cee dana ci yëg boppam. kon li ñuy ñaan d'abord mooy que nañu fexe su fekkente ne dialogue mëntu la am su fekkente ne consultation mëntu am. te gars yëpp dañu manqué ne bàyyi sénégalais déterminé. loolu mooy mooy lu euh, gën sax le 2 avril mu jël mooy lu gën euh, mu xool daar daara euh, waxtu bi nga xam ne war nañ ko amal élection ci mois de mars ndax kenn soxlawatu fi fitna ci biir réew mi fitna bi ñu am ci wàllu dund ju métti jafe-jafe yi ñuy jànkonteel tous les jours doy nañu sëkk ay waay politique nekk fi di fi xiiro di fi ŋaayoo les victimes nag du ñenn ñu dul ñun ñi nga xam ne ñoom ñooy les les citoyens sénégalais loolu nag. faw ñu jël si ay matuwaay yu wër a wër Seydina Omar baa ñu ngi lay sant di la di la gërëm euh, ci euh, actualité vue par Seydina Omar baa da ngeen di toog gunge ñu euh, je pense que c'est à huit heures que démarre la synchronisation avec la 99 point 0 di Walf FM léegi léegi dañuy seeti régie dañuy dem régie dellu